sayidina mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa ashaabi guril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din wa radiyallahu an shaykhina wa rajaina wa sanadina hamid liwal islam al mujaddul akbar cheikh ahmadu bamba xaadimu rasul xarajtu yowmu sabti saamin asar li xidmatil muxtaari fi sahri safar mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci xayri xalqihi sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam njukkal seexuna cheikh ahmad bamba xaadim rasul ñaanal cheikh mamadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko noonu lañ koy ñaanale sëriñ cheikh jëmb fall noonu lañ koy ñaanale jullit yépp ak taalibi yépp fas yéene ñëw rek ci mbégteem safar macha allah mooy bis bu tedd bu am solo boo xam ni moom lañ leen fas yéene bégale waaye fas yéene koo ànd ak yéen ci diirub safar bi yépp Eh, di lent ak yéen insha allahu taala ci lépp loo xamante ni lu ñeel dunduk Serigne Touba xaadim rasul xam ngeen ni ñu fas yéene ñëw nag ci sunu ñetteelu numéro xam ngeen ni ñu ngi yaman di Serigne Touba jógee Touba ginnaaw bu mu fa yaree taalibeem yooyu ba def li'tikaafam googu ba jaayante nag digganteem ak boromam bëgg a bokk ci ahlu badrin ba nim sànc dëkkam boobu nga xam ni mooy Mbacke Bari Jolof Mbacke Bari Jolof nag xam ngeen ni dëkk la boo xam ni. ba mu fa ñëwee nag dafay mel ni sababu zahir bi dëgg nag foofu la gën a tàmbalee nag ndax mbooloo ma dafa bari wan kenn ci njabootu sëñ Tuubaa gi wax na ne lii wane ni mbooloo mi dafa bari wan dañoo wax ne bu ñu masaa julli gee di séddale reer bi danañ dem bay julli fajar te reer bi dina am ñu mu àggagul ci ñoom loolu mooy wane ne kon Mbàkke Bari Jolof mag ñi dañ ko faa fekkan te foofu nag dangay gis ni sëñ Tuubaa ku ku ku yàlla dimbali la maanaam maanaam ginnaaw bu mu doonee koo xam ne coobare sunu borom la yàlla daf ko mayoon stratégie ni mu doon yare mag ñi nga xam ñoo ànd nag moom ndax booba samp na sëriñ bu soo Gédé samp sëñ daam Abdourahman Lo fële nga xam ne mooy ndaam waaye samp maam Cerno Birayim fële ca Daaru Marnaan ñoom ñëpp ku ci nekk mu am lu la féetale nga nekk ca sëñ tubaa ànd ak muritam yooyu nag ndekk Mbàkke Bari Jolof waaye tubaab yi nag daal di tàmbali wax ni nag léegi nag liñ doon wax lépp wér na ndax booba xam ngeen ni siiwan na ci jëmm jooju nga xam ni daa jëleen ab signature sëñtuwaa sëñ Tuubaa fexe ba euh, tamponné ko fenn di ci bind ay leetar di ca wax la gën a aay di ca wax la gën a ñaaw loo xamante ni day wane ni tubaab bi daal di wane di di di di sëñ Tuubaa wane na ni ci biir leetar bi ni moom pare na pour xeex ak yéen fekkit la koy gën a firndeel mooy tubaab bi dañoo bind ay leetar yu bare bari waaye benn egsiwu ci sëñtuwaa bi nga xamante ne wax di dox na ba sëñ tubaa sëñ tubaa daal ni man de benn lettre mësta agsi ci man waaye mu daal di jàpp ndaw nag yónni ndaw la mooy kan mooy maam Cerno Birahim booba at néew la am waaye ca fit ca njàmbaar ga ak ca yeewu ga sëñ tubaa bi mu yónnee Ndar ngir mu dem wuy jul ko tubaab yi euh, lu xew lu am solo da ca am mooy sëriñ tubaa dénk na ay kàddu maam Thierno waaye dem na ba yàggit mu woowaat maam Thierno ni ko yóbbul sama jëmm ma dese sa jëmm kon gis nga ñàkk moroomu Sëñ Tuubaa gi day feeñ ca ba ci kuñ koy tudd di ko tudd maam Thierno ak njàmbaar ga maam Thierno ak fitwa waaye doon ndaw loo xam ne jamono booba Sëriñ Tuubaa bind na ni booba nit ku ñuul bu gisee ab tubaab day mel ni ku gis malaaka maanaam ragal lañ nan ab tubaab ragal goo xam ni kenn mësula koo wax ci jamono booba ku dul maam Cerno ñu mu woo ab tubaab bi mu ñëwee booba góor gouverneur bi fi nekk mooy Merlin moo fi nekk bi mu ñëwee war koo jox leetar bi kii mu war a jox leetar bi tàllal ko ab palaat ndax jamono booba dañoo wax ni tubaab yi dañoo seexlu nit ñu ñuul ñi ba amoo sax droit wu tubaab bi tàllal loxoom nga ci teg sa loxo maam Thierno daa wax tubaab bi ni ko man de ki ma yónni dane ma ginnaaw bu mu génnee loxoom naa ko teg sa loxo kon ci sa loxo laa koy teg waaye du ko teg ci ay palaat loolu kon li muy wane mooy personnage bi nga xam ne am na ko waaye fulla ji mu am ak jom ji nga xam ne am na ko tubaab bi ci jëf jooju maam Thierno doon jëfanteek moom ci la dëggale ni gëm naa ni kii rakki la ci ki ñuy yónni ndax fulla ji nga xam ne am na ko ak fayda ji nga xam ne am na ko te li may dégg ci kii kon moo nekk ci kii waaye daal di wax maam Thierno ni ko kon de man gëm naa ne ci yow ci moom nga jóge te xam naa ne soo ko nee maa ko woo dina ñëw léegi kon mu wax tubaab yi ni leen kon sama télégramme fu mu leen fekk na ngeen toog xaar sëñ bi foofa maam Thierno jóge ndar di ñibbisiwaat yoon wa yoon wu doy waar la yoon wu yéeme la yoon wow dañoo wax ni maam Cerno daa génn bi mu génnee am ku ko àll aw fas boole kook as ak ab waaye waaja di ko tegtal yoon ba yàgg mu boole kook ab pël pël ba réeral ko ci gajj bi maam Cerno nee na moo na fas wa de bañ ko koy aal da ko ni waxuma tële waaye tërëf sax du ko def yarub juróom-ñaari at a ci ne maam Cerno nee na ma bàyyi fas ci njëm waaye fekkan na am na xam-xam bu ñuy wax ilmu nujuum xam-xam boo xam ne mooy tax mu xam biddiw bii ni barab sàngam la tiim mu bàyyi fas wi muy daw ba jël foofu lu am solo am na fi soxna Faat Ja taawub sëñ Tuubaa bu jigéen nettali na ni sëñ tubaa keroog bi muy waaj a dem ci tukki boobu soxna Faat Ja nee na danoo dajale nun njaboot gi berndeel nu attaayaal na ci loxol boppam waaye waar nu wan ni nu mboolem gaa yu baax yépp ku ci mas a am lu baax fii nga jaar fi ma jaar wan leen nit day liggéey yàlla dellu si waat soxna Faat Ja Mbàkke nee na biñ demee ba fajar si xar nee na laa gis ñuy jagat gaali sëñ di ko jaarale ci poot bi ba yàgg nee na fasam wi tudd aw nu leexi ma gis ko ñu jaarale ko ci buntu poot bi nee na ma gis teg gi mu daan teg ci kaw nga xam ni dégali ay nikkal lañ ko defee yu weex ñu génne ko nee na ca laa ma jë ca laa ma wax na ni Cheikhul Khadim bi muy dugg ci jàkka ji laajte na ndax maam no Birahim egseegut ñu ne ko déedéet waaye nee nañ laataa muy sëlmal maam Thierno dugg na ci biir sàppis julli si bi maam Thierno jullee ba noppi sëñ Touba julli mu ànd ak moom sëriñ tubaa jël ay loxoom teg ko ci waggul maam Thierno. wax nañ ni maam na jot naa waxante moom ay baat bokk na ci lim gis ci yoon wi ndax maam Thierno bi mu yëg si ba Mbàkke Baraaga yi wax nañ ni fa la fekk soldaar si ñu tëdd di noppalu waaye nee na àll bi daa mel ni ay toor-toor weex tàll ak i soldaar ak seen gànnaay ak seen fas yi bi muy nettali sëñ Tuubaa aslëf ci li mu gis ak moom xol bi mu ci am mbooloo moom bu nu waree egsi ci dëkk bi sëñ Tuubaa da ko ne dara jërul ne jërumaa nettali Ceerno mbooloo nga wax mu ne ah mu ne ko menn man maay dem yéen da ngeen may xaar maam na Birahim nee na Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul ànd ak moom ni ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko xanaa da nga xamul ni démb ci ngoon bi nga àndeet soldaar si ak tubaab yi ca la mel ni dett mbeer ca Louga xorondoom yi doon dox ci sa tànk bi yuqu xorandoom gi ni mu doon dale maa ngi ko yëg fii Cerno kon dara dul ma nettali li ma la dénk mooy sama njaboot gi foo leen mën a yore ci kaw suuf na nga ma leen yoral wax nañ ni dem bay dugg ci kër gi moom sëñ Tuubaa daal di tudd yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah sunu borom de xamalal na ma ni sa duggaat ci kër gi xaraam na daa war ci fas wi jël benn loxoom teg Cheikh Mamadou Fadal jël benn loxoom teg Cheikh Moustapha Al Karim ni leen dénk naa leen yàlla ak seen baay Thierno daal di war ràmbal daal di jublu si ci foofu nga xam ne mooy jeewal jeewal fa la dajeeg tubaab ja waaye foofu lu am solo am na fi loo xam ne mat naa bàyyi xel fekk na si Ahmad Bamba Xaadim Rasul di wax ni aataani allahu fi ruuxi wa fi badani maa laa yuraa li saati bila tuhami alaani allahu bil serran kafa kulla kaffaarin wa namaamin kon dafay wane ni sunu borom waajalan na ko te waxan na ko résultat bi mu war a am laataa mu ñëw yaramu boppam képp dara du ci sikk waxuma la leneen yaramu boppam képp dara du ci sikk wala leneen ak ruuxam ak yaramam lépp sunu borom moo ko garanteel ndax li tax may na ma dalug lislaam gi la wax sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jàmm kon moom engagement bi nga xam ni moom la maam Moussa ko wax ne yan banu yanan xutbu ya ak abdaal ya te atte attanuñ ko ba mbaa ko fob raw ya dëngañ di wéy te tawatul balaaya suuratul awaali la am ci raaya kon da gis ne moom engagement ferme bi mu jël moo tax yàlla ne ko nag kon aar naa la ba ba ngay del si dara du sikk ci yow loolu li koy firndeel mooy geneen xasida goo xam ne Sëñ Tuubaa nee na maa ngi ko way ci ngoonuk ajjuma bët set di gaaw ma war a dem ci liggéey bi waaye xam nga lu mu ko tëggee xamittu man yaasimuni min a darar min kulli shaytaanin wa jinnin wa busar yàlla musal na ma moom mi nga xam ni mooy musle ci loru jinne ak loru doomu aadama waxul yàlla nag ma musal de musal na ma la wax laataa muy dem moo tax mu wax ni keroog ci fajar bi mu génnee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo daal di dikkee ni ko yow nag dama laa bëgg moo tax mu naan wa jaala al muxtaaru salla alayhi lu hijaaban maani'an min ad-darar imsi laa taxsil gharar ne yonent bi dañ ne gis ma rëdd wër ma ba mu egsiwaat fi mu rëddan ni ma yow dama lay aar ba ngay dellusiwaat dara du la lor demal im laa tax sal garam moo tax ma ne lu dal yonent bi dal na sëñ Tuubaa lu dal yonent bi dal na sëñ Tuubaa ndax yonent bi sallallahu alayhi bi nga xamante ni eh, wax na Ali ibn Abi Talib mu dem tëdd ca lalam mu ànd ak Abu Bakar jëm ci xunti ma keroog suñu borom da ko ne laa taxsan inna allaha maana bu ragal yàlla mi nga ànd ak yow xoolal fii da ko ne imsi laa taxsal garam doxal bu ragal daal lay lool kon xamal na ni dafay demaat dafay dem waaye dafay dellu siwaat kon jeewal noonu la mu daje tubaab ya nag fële nga xamante ni nag mooy jeewal nag jeewal nag lu yéemee fa xew mooy tubaab yi dañoo am ci seen kayit wi ñu leen bindal seen bëdëroo bi ñu leen jox ni leen bu ngeen demee foo ñu ko fekk nañ ko jàpp ba mu fa yendu sëñ tubaa leen waxuma leen yendu waaye daa fay fanaan amaguma ndigalul dem jeewal lu bari xew na fa moo tax jeewal lafa fa sëñ tubaa wax ko wax ku dul borom tubaa boo xëyee iblis toroxal la jeewal la sëñ Tuubaa wax ne aya saminillahu inda jeewali iblis a isnaaday taw bi yaawali jeewal la sëñ wax ni iblis bu fekkan mbër la jàggi naa ko ba ca kaw ma ruur ko teg ko ci suuf kon jeewal a ngoog mbokk yi fii lañuy yàlla ak yéen insha allahu taala danañ àndaat ak yéen fas yéene koo toppe noonu dundu Seexul Xadiim ba ci li nga xamante ni mooy bis bu tedd bi di 18 safar ashinu muhjamatan wal kaaf waraaw